ñu ne nemmeeku ci réew mi ay manifestation ca diwaanu ndakaaru Mbàkke Kaolack Thiès ak yenn dëkk yu bëree bëree bëri ci diwaanu Kolda waaye fële nag ca diwaanu euh, Saint-Louis mu mel ni ab benn étudiant foofee ca université euh, Gaston Berger moo fa daal di ñàkk bakkanam kanam bal lañ ko daal di euh, dóor mu mel ni nag jamono jile daal di na ji enregistré benn bakkanu doomu aadama bu ñàkk bakkanam tey jile ci li nga xamante ne rek moom mooy manifestation yi nga xamante ne nag dañ ko woote woon ci li nga xamante ne rek moom mooy liberté de notre démocratie ngir daal di taxaw temb daal di jàkkaarloo ki di njiitu réew mi Macky Sall ci li nga xamante ne ne rek moom la ñu tuddee euh, coup d'état constitutionnel gannaaw ba mu ne dafay reporter li di élection présidentielle yi nga xamante ne jàpp nañ ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bi la ñu daal di nekk ba tax nag askanu Sénégal daal di joxe woon rendez-vous euh, fépp foo xamante ne rek ay sénégalais nekk nañ fa ñu ñëw daal di wax daal ne Macky Sall du fi amalee euh, li nga xamante ne rek moom mooy report ay élection ba tax nag tey nag ñu nemmeeku woon yenn ci manifestation yu bëree bëri sociaux yi ca diwaanu ndakaaru gis nañ yenn ci ay journalistes yi ñu daal di euh, brutaliser daal di leen di euh, dóor mu nekk nag ay image yu doy waar mu nekk nag la nga xamante ne rek euh, ñii la di samay confrères ñu ngi koy daal di naqarlu bu baax a baax a baax waaye nag jamono jile ci manifestation yi mën nañu jël ab bilan benn doomu aadama moo ci ñàkk bakkanam fële la ci diwaanu Saint-Louis ca université Gaston Berger ba